Dimoka, du vrai café, du bon café, les capsules Dimoka. Dimoka, du vrai café travaillé dans nos usines avec les normes. Dimoka, c'est du café d'exception, rien que pour vous. Jimoka. Hmm, du vrai café. Oui, le café Jimoka, merveilleusement bien travaillé à l'instant même. Dégustez du café Jimoka. Le café Jimoka, réputé à travers le monde. Jimoka, deux voies Liberté 6 en face SAMU municipal. 78 302 59 59 78 591 00 00 78 592 00 00. Disponible aussi dans les Station EDK. Le café Jimoka distribué à travers le monde. Le vrai café, c'est nous. Nos machines à café Jimoka hmm, du vrai café. Jimoka Moulin série Yamale ak Saya di ko woo. yaa xale. uy xanaa yoroo wantaay bi. sama mbagg yëpp ay métti. man damaa gëmmeentu ba mënuma xool. maa mënul nelaw si boppam. jox ko xaalisu courant bi mu dem ak lu kenn xamul fu mu nekk. ayé ayé mbaa Madior teel mbaa Madior tëli na. Madior Ndiaye foo Ayo, dem na ya. bu yàgg ya déjà ana courant bi. courant ba yéen lu leen tëdd tëdd ba heure bi naa di ma laaj courant. yow gisoo kër gi ni mu ne tuus nan la ñuy tëddee di nu bëgg iya, a rey. yéen amu leen courant bu taal kër gii nii. yow bi ngay dem lan laa la wax. papa xanaa xaalis si courant bi. wax dëgg yàlla. xam nga ne tàngoor bu su amee kër gi kenn du nelaw. wala daanaka tey daanaka rek rayoon nañ ma man daanaka rayoon nañ ma. dafa nii yow rey fan man daal matt seeg ñaari xalé goor ñu ne mu kiru waju bax mëna nam a naam ndekete xam sama tour yow sàcc bandi ñëpp xam nañ sama tour kiru waju bax mëna nam kenn ki ñoo di ma akolaat ka fara ginaaw rocc na xaaliss bima yoron yoroon yob yob yu yóbbuwaale sama téléphone mëna ko hey hey hey wuu wuu mu bul de mo ci mëna ciel mëna ko xaaliss bi nga yob sama xaaliss doom la ak xaaliss courant kër sàcc bi yëkkati 200 na ma paas nga ñibbi père moo gën ñu lay rey. 200 wallaay. sàcc yi ma utal oto ma ne ñibbi si ñëw nii. ma ne cëpp ndekete ramas baa ngi ci bopp koñ bi. nii la yóbbu xaalis buy yóbbu sama téléphone. nii maa ngi eh, nii. ñeenti maajo yi muy fayee néeg. Ah, war nit nga yow laajoo ma sama bakkan bi di ma laaj xaalisu maajoor xaalisu maajoor lañ boole bu courant ba yóbboog sama téléphone. déedéet man xam nga lan laa bëgg xam yow fan nga nekkoon ba yenn heure yi ba bandi di la dogaale ramas di la ramas loolu la bëgg xam yow dëkk bi nga xam ne lépp inondation la fu ne ngay wiiri fu ne ngay wiiri yaay tamit kon ko sama papa ñu ñu egsi na si jaamu kay moo gën sa mën ma ndokk sa bakken mbaa jamuñu la mbaa gaañuñu la waaye xaalis bi xaalis bi xam nga ne ku sàcc sa téléphone du fa bàyyi xaalis man bi ma nee jàkk waa ak capuchon bu xonq bi mu di ma xool laa xam ne kii ab sàcc la ci loo yore loxo sama pos na coppet téléphone ba juróom benn junni yëpp ya. la maajoor waroon a fay location courant kër gi lépp dem na. yàlla comme sama papa ñëw na si jàmm. doo ma bàyyi. waaw sama yaay yaay nag sama papa gën xaalis bi. man sa papa daraam laa gëmul. daraam laa gëmul daraam moo ma doyul. jërëjëf jërëjëf man boo ma gëmul boo ma gëmul gëm naa sama bopp. waaw kay. boo ma gëmul gëm naa sama bopp. waaw nan toog si lëndëm. te xoolal yow yàlla dinañu dinañu ma sa àtte man ak yow. yow dina dinañu ma sa àtte. man mii bu fekkee lu ma wax nga ne ma amul lu ma def nga ne defuma ko ya billahi nan dem ba ci kanam tuti lepp dina leer yalla ya sunu borom dina at nga tej sa bët te do ci man dara sacc nañ sama telephone nga na sacc ñu sama telephone Hmm? ñoom la ñoom la sàcc yi ñoo wone seen numéro bi ñoom waaw waaw sàcc yi na def waaw accident waaw waaw waaw ah da ngeen maa bëgg a boole ci seen groupe whatsapp groupe whatsapp sàcc yi waaw amul problème dugal la mu ci sama Instagram tamit ngeen tage ko ah valeur inconnu ngay def rek waaw ah yéen banditisme la benn la dugal leen ma waaw maa ngi nii toog sama famille xaar ma jox la soxna si xaar ma jox la soxna si. wuy jox ay bàtt sàcc wuyu sàcc. man wuyuma ay sàcc. seen chef bandi yi bandi yi. du gis ni nga toll da nga am fit bay dugg si sàcc ak ay bandi demal. bil billahi bu narayee du ma la tëjee damay waxtu nel. allo allo kooka foog di wax ay bandi ak ay sàcc. allo allo simol bi la simol bi simol bi waaw simol bi ñooy tëdd nii. simol bu ñoo tëdd ne waaw soxna si mooy chef simol ba dem tëdd laa ilaaha illallah ay way ku ci moytuwul baatare ku ci moytuwul baatare wax ma la guru whatsapp sàcc waaye guru whatsapp gens maa ni sax ci bokk lépp baatare ma ko yóbbee waaye ngulle rek maa ngi ni ci lëndëm gi ki la eh ñu ñan la ware ware ware ware du ko jege. parce que mooy loolu quoi euh, suba dañoo war a dem atelier bi yëpp cotiser nañ ba pare ñi nga xam ne andiwuñ seen gel yi ñooñu 5000 la ñuy participer man cotiser naa la joxe naa 10 léegi nag bu fekkente ne si doo ñëw rek loolu daf may daf may handicapé franchement te sorte bi soriwul fii rek la ci ci ci mbaaw bi nii préparé rek ci tëppale waaye nga jàpp ci. gis nga ma ko man foogoon naa yëpp dépassé nga ko ay affaire sortie ay soirée yu ñàkk fayda dangay ñëw waxtaan ak sam nga def fu la mais man yi nga nekk nekkuma si. loolu dëgg la man bëgg naa la te man bu ma sañee itam nga doon sama soxla mais soo demul mooy loolu quoi xam rek atelier bi yëpp préparé nañu affaire noonu s'il te plaît jàpp ci nag. kii mooy Bakh. booy yaa fi ñëwoon bii man la kay. luy say tànk. waaw maanaam damay bëggante xuja amoon yéene def ko mu nekk suma soxna. Hmm. Hmm. Eh, sali ba tey ko sali ba tey bu ñu bëggee cër sa doom. ñoo ne la lépp ñu wasaare ci kër gi rek. foo dëkk. man fii rek soriwul ginnaaw ko ñu waada ci ci ci côté boobu rek laa dëkk noonu soriwul ma fii. Hmm. looy liggéey. waaw man nag damay jàng métier. da ngay. damay jàng métier. yow mii. waaw. yow de xanaa yaa mag sa patron. <laughs> mën na ko yor yi at jàng métier. maguma ko sax. ah ngay def. waaw man nag soudeur laay def. soudeur waaw ah, soudeur métallique. kon daal yow dangay ñëw ci kër gi fekkoo fi kenn nga bëgg a suuri xale bi. ah kay. sax. Eh, man bi may doxaan doxaan li oh. ngay def nii yëpp xam naa ko te yow sax maanaam yow am doxaan dalaa wàcc doxaan wàcc na la bu yàgg. ndax kuy jang métier mënagoo ci métier ponkol mu toll yow naan damay jang métier dama jang ci métier mi te ba ndoxaan mi métier mi daf len ko sen bop yi hein len nak naan ko xamal bis bu ma la gisatee fi ci bir keur gi bis bu ma la fi gisatee koro nga xamne yalla yàlla la santane ma ngi bëgg yagg ci métier mi sax man. mooy yow booba léegi amagoo place <laughs> ma ne ko booba léegi amagoo place ban ana nga commencé jang métier. yàgg ci léegi ñu ber ma sax. mu yow yow ku la ber nga gaañu yow yi at jógal jugal jugal sa kilot kuy doxaan di sol kilot nga mel ne ku nekk regroupement ah. ma ngi dem ko boo demul nooy def ñuy doxaan di sol coton ah muy sole kat yow yow mu jul kii dina la fi ma sa enceinte nga xam. ngëj ko jot dugal ci kër bi ponkal mi xam man mom mak foofu mak sa yaay di jang metti nga na sarax ci mom ban intérêt la amal. papa ki amul ben problème. amul da ko ci xol ko nan na yuur gi yow ki te wuri na la bu yag dina la fi suuree dina la suuree la. dina la doxal fo nga na way papa doxal may ma ndox ma naan. yaa ko fay wala ngeen nag fon na koo fon na fon na fon ba xol xol xol ko ki cam ah yàlla na la jig. aywa amiin yàlla guddal fan yi barkeel sëy bi barke sama jëkkëru te <laughs> tey dama koo yëg rek barke xam nga man maay daalu ndakaaru loolu de na. damaa woyof ne daalu carax. dëgg la bi ma yëgee affaire yi. Mhm. client yi di ma woo kar kar kar Modou sa patron sax Modou Cuuraay ne ma demal rek. waaw sa naw la la. Mhm. ma ne kon foog ma dem. la kon nag ñaareel nga. Mhm. te fekki. dégg nga loolu. sëy nag barke sama jëkkëru maam du màgget. loolu de am na. te foo dégg ci àdduna bi nag. Hmm. kenn mësulaa dégg na la sëy daa neex boo sëy lu neex muñal. muñal barke sama jëkkëru maam. ah sukkër la ak kaani rek. dëgg la ak kaani waat la da ci kaani nga da ci sukkër si dajaat ci sukkër si. barke sama jëkkëru maam parce que ma waa koñ bi ne demal ci ndax mooy jaay jéggi ci koñ bi ma ne xaaral ma woo la. loolu la ma <laughs> la Abdel cuuraay borom cuuru cara bi. dëgg la càppaa cuuru bi doomu ngumba ngeewal bi samay xeetu baax baax dang koy tal tok ba ca kaw nàmpatalu soral ba di bara dadi yow ma tay fi dana mel ciol ya mba du jug kaw mom deug la ciol ya ciol ya mba ci suuf lañ koy wax eh yow mëno bay bo mo jox lek wala nga may may ndox nga may sarme pap fan la la sarme man sa bay la la may sarme la may joxe ndox naan hmm, di ma ci ay tuñ pap man ni la mel cam tàmm nga la bon yow nga andi xanaa kaas bi da ngeen ci xoojoon ci njeer. sama yaay moo ko raxas de. yow sa yaay raxasam du set sa yaay raxasam du set am kii bu ma teel koo may de xale yi célibataire yi nga xam ne ko wang la ñuy bañ a gis wang xoolatuñu aas wangal rek wangal rek ñu ne la feeb. ma la sëy bi dina am sëy rek. ba de. Yo am, na'am Sayrek Bade Dana La ilaha illallah Kira mara kamu far hmm. Marki sama jaga rumam mo mali Pare aku made Dangai sama nola dom day. Iya. Yeah Minu jona, Sa gorom karta bisu ngone ila laa ko tuddee de mhm. takk sa ñeenti fer mhm. soloo mu la tonay gatt bul juum tono yu gudd ngay riijal sa borom kër fekk mu tok ci digg dal bi ci digg lal bi ca nabatal ba ngay riij déggal loolu imagine toi mu nek ci digg lal bi rek ëpp ngay riij dox mu yow eh, da nga war da nga mel nga wara mel mel tarkalla <laughs> sama yow non yeen do len dem cuuraay la yu may ban yow jeeg day pare mu nday deug la da ngay sey de mhm. du ma ngémboon ak ragal te man nee naa du ma ànd ak foro. lii am baat ci dëkk bi. dëgg la waaw maa ngi seen fay léegi. dama ne taal sa ànd ba mu baax. booyal say xal bu mu xonq doom day nooy del del lay doom nag doom day. Mhm. del lay doom. Mhm, muy nooy. tegal sa cuuraay teg ci doom bi muy nooy. nga nekk sa borom kër ci biir néeg bi. ñaareel nga des fois nga je am nga foo koy jàpp barki sama jëkkër moom daal la may naa la xare kër gi apartement bi yaa ko moom kayitu kër gi. loolu うわ entraînement baax na ci góor entraînement baax na ci góor. waaw nit yaay lii lan la. li nga gis la te bokkul ma la li nga gis la. waaw kii moom ndax jox mi wala ñu liggéey nga kii moom moo xataay. sa papa daa dof ah.

Jimoka, du vrai café travaillé dans nos usines avec les normes. Jimoka, c'est du café d'exception, rien que pour vous. Jimoka, hmm, du vrai café. Oui, le café Jimoka, merveilleusement bien travaillé à l'instant même. Dégustez du café Jimoka. Le café Jimoka, réputé à travers le monde. Jimoka, deux voies Liberté 6 en face SAMU municipal. 78 302 59 59 78 591 00 00 78 592 00 00. Disponible aussi dans les Station EDK. Le café Jimoka, distribué à travers le monde. Le vrai café, c'est nous. Nos machines à café Jimoka, hmm, du vrai café.